تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لا muy waa kër sëñ Cheikh ak waa kër sëñ Abdou yi fi nekk ak waa kër ak sang yi fi man bari naa fii sang lool lool lool euh, mën naa ni tànt bi moom buur laa fi ndax wolof day wax ni jaam bu nangoog ndak jaam bu nangoog jaam ci ngóor gi la bokk man nag jaam bu nangu laa moo tax fii na boor laa fi maa ngi siyaare sëñ Paal Abdourahman mi nga xam ne moo doon waxtaan di ko sant bu baax a baax a baax di rafet rafetlu nag waxtaan yu bu baax waxtaan yu am njariñ lool lool lool te yomba xam mm, xam boroom xam-xam bu mën a wax ak nit ñi de ndax buy wax ak nit ñi day wax ak nit ñi fañ toll sallallahu alayhi wa sallam xa waxoon xaatibu naas a qadri uqulihim na ngeen wax ak nit ñi fi seen xel yi toll moom noonu lay waxe mbooloo mu mu waxal rek ñu jëriñu ndax du waxe fa mu toll waaye day waxe fi mbooloo mi ne mbooloo mu ne la mën a waxal yal na yàlla barkeel sa xam-xam yal na la yàlla may fan wu gudd ak wér barkeb sëñ Tuubaa euh, teg waxtu wi ne kàddu yu gàtt rek ci jëmm muy Serigne Cheikh Fatta ko muy koo xam ni Serigne Touba defar ba mu defaru te màndargay defaru ga feeñ na ci lii sëñ Mbàkke Abdourahman wax sànq ndax màndargay defarum sa sëñ Cheikh Fatta ko foo ma sa jàkkaarloo boowul même boo ko mës sa gis boo mënul bëtt ko gegg ci moom rek daal di xam ne ko defaroon gi bu fekkee xam nga dara ci yàlla wala nga xam dara ci diine wala nga xam dara ci mbaax da ngay da ngay daal di wóor ni ku baax a ngi nii ku defar nag noonu lay mel feeñ ca yar ba feeñ ca wayaf ga feeñ ca dal ga ndax ak defaru du feeñe fenn fudul ci bi yar ak woyaf ndax sëriñ bi dañu ne woon barab bi de lenn rek fi am loo xam ni ku ko fi jële ba woo fi dara waaye ku ko fi baax jële woo fi dara muy ab yar kon ak taalibi lépp ab yar ab yar dong la kon ku la gën a defar yaa ngi koy gën a mën a xamee ca eh, ca yar ba bàyyi nit ku yaru la woon koo xam ni yar ba foo ko takk wees na ko nit ku woyof la woon koo xam ni kii woyof ga foo ko takk wees na ko ku gis rek jàpp na ni yaay kilifaam man mii fu ma ko mas a joxal la ko li may dénk mooy koo koo gis rek na nga defee ne moo la gën dégg nga la may wax koo gis rek jàppal ni moo la gën dégg nga maanaam man ma ne ko waaw ba fi gënee doo doon gone nga xam ne xaw ma lii loolu bu wax man man dama waaw xaw ma ko gil koo gis ak jàppal ni moo la gën ma demee dema dem ba xam ne lii muy wax mooy ak ak defaru koo gis rek na nga jàpp ni moo la gën dégg day tey sama loxo bi di ma ko wax nga xam ne noonu la meloon moom comme gis jàpp na ni yaa ko gën comme gis jàpp na ni moo la war a wormaal moo la war a teg ca kaw ba noppi nag yaroo yaroo yaroo yaroo ab yar ci la ñuy xamee ak defaru ndax yoonu murit ab yar képp la du leneen ak ab yar képp la du yeneen ak defaru lépp ak ab yar laa ko woyof am na dafa am ci bu yàgg lu jiitu yoon wi sax nit ku baax koo xam ni nit nitu yàlla la dafa dégg kuñ doon soow di soowuk baaxam ak defaroom ñoom bu ñosaan masaan déggu ku mel noonu dañuy jóg dañuy jóg seeti ko mu jóg ne da koy seeti bi mu demee ba ñu won koo kër gi ànd ak moom ba mu ñu tëll séen ko fekk mu toog jublu penku tàllal tànk yi mu ne ana kooku ñu ne ko ma mu ne ah daal di wàññi ba te eggut nam eh, comportement ba nga ko fekkee rek ci la xam ni kii du ko defaru dañuy wax rek ndax toog jublu penku tàllal say tànk noonu rek la ko fekke def ñu ne ko kee la mu daal di wàññi ko jàpput ni kii ko defaru la kon comportement ak bu yar ak bu woyof ci la ñuy xamee defaru nit ki fo ñu leen kii defaru na xoolal yar ba xoolal woyof ga xoolal comportement ba ci loolu rek lañ koy xamee bàyyi seex nag ñett yi moom moom royukaay la ci woon misaal la ci woon yaru ak woyof bañ na ko ba kilifa yu jigéen sax dañ daan sukkal ak ni mu doonoon doon kilifa ni mu doon mag ndax woyof rek woyof ak bëgg a wone ak taalibe ak taalibe kon kooku euh, loolu nag li ko ko may mooy day ndaw ci kanamu sëriñ bi te sëñ bi mayoon ko ci boppam lu jafe mooy taxook taxoog gone sëñ bi daawul taxoog gone état bu njaareem bi mag ñi sax daawuñ ko gis surtout euh, jamono yu mujj yi mag ñi sax daawuñ ko gis waxuma laa euh, gone mag daana ñëw siyaare si ba am fa ay weer wala ay fan day mujj batale àddiyaam dem du ko mën a gis ndax boobu ñu egg na ci ñàkk jot foo xam ni mayeetu mayeetul dara sëñ bi ab dundam lu mu gën a sori mu gën a mu gën a mu gën a mu gën a mu gën a dang ci li mu nekk gën cee way ndax boobu yooyu jamono képp day mel ni waroon naa fekk muy jéem a noppalu waaye yooyu jamono li gën a sonn ba kenn mënatu koo gis ngir jàmm yàlla la yooyu jamono nag la seen la seen seex moom nga xam ni mag sax daw ko gis kilifa gu baax nettali na ma nee na dafa de da da da dafa dem ci dafa dégg ak kilifa ci njaareem goo xam ne ki dañ ko daan limaale ci mag ñi mu jóge fii na da koy seeti ki ma ko nettali moom mi ngi dund ba tey du mag sax bugul ba demee laaj ko ci sëriñ bi dara ba mu demee fekk ko ca daaree kaamil ja mu ni ko man de yow laa soxle woon mu ni ko demal fee toog ca ker garab gee ba ma noppi mu dem toog ba mu jàng ba noppi ñëw ne ko nga ni loo doon dox mu ne ko man kat damaa ñëwoon ngir bëgg a xam ci sëriñ bi dara ndax yow yàgg nga njaareem dégg naa eh, eh, ku xam ci sëriñ bi nangam nangam wax ko lu bëree bëri mu ne ko ah eh, man de doom li ma xam ci sëriñ bi bëriwut xam nga mag ñoom daw ñu fen naafequñu woon seen gannaaw lañ leen di waxal lu amut waaye ñoom daawuñu waxal seen bopp lu amut daal dina ko man de li ma am ci sëriñ bi mooy damaa nekk daara sàngam di jàng booba dëgër naa dégg sëriñ bi rek coow li bari lool ma jóge fa ne dama koy seet si ba ma ñëwee am naa fi sama mbokk muy sëñ ma sëñ Malamine Gueye sëñ Baara Gueye xamoon naa ko waaye Baara Gueye ca daara Kameya mooy bàyyi bu ndaw sëñ Souley Gueye mais fa moo ko yar nee na moom laa fi xam muy sama mbokk ma daal dem ci moom ne ko dama bëgg a gis sëriñ bi mu ni ma ah. yow di sëriñ bi moom mag sax gisatu ko waxuma laa gone yow bari nga sorat yi man ka man daal moom laa gëm man ka nee na mu ni ma man de li ma la mënal mooy nga dem fee ca daara ja toog ci dongo yi bu ñuy jàng nga jàng bu ñuy liggéey nga liggéey saa su ma wooyee danaa la danaa la yóbbaale nee na ma dem toog ca daara ja am naa fa juróom benn weer sëñ bi woowu nee na ba ma fa amee juróom benn weer benn bis ak genn marax nee na ma ma mu daal génn yàkkamti goo xam daal di ma ndongo li ñëwal ma topp ci moom muy ñukk may may daw topp ci ban egg ba nu duggee ci kër gi ba nu duggee ju jubee bunt ma gis mu daal di egg suuf ma ne ni ma eggal suuf ma egg suuf nuy raam ba dugg ci bunt bi ba ma duggee ci bunt bi nee na maa ngi seen ba waxtu timis la jëm gee maa ngi seen ci digg ëtt ci digg eh, kii bi ëtt bi luy ñuul loo xam ne nit laa ko teg waaye wóoruma ndax daal daa dem nee na mun waa ni xaar ma di raam di raam di raam di raam ba ma yegg ma dégg ñu ngunu ngunu ma sa ko xam ni nit la mu ngunu ngunu mu tuuti mu ne ma ndongale egsil ba ma egsee moom bi mu daataan wax sëñ bi ma njëkk a laaj ana foo bàyyi ko ma ne ko daa daara sànga mu ne foo toll ci téere bi nee na ma ne ko ah, barab sàngam laa tolloon de waaye mu ne waaye day wax wax ànd rek mu laa mu eggale ko daal ne bërit moo leen njëkk a jóg waaye day wax wax ànd rek mu laa mu eggale ko daal ne bërit nee na nu soog a jóg moom ci boppam moo nu njëkk a jóg wan nu gannaaw nee na nu jóg génn mu ne ko lii laa xam ci sëñ bi gannaaw bi nag diir bi ma fi ne léeg-léeg mu génn di julli ji ayit ñu ni baa ngi ne nu yéeg ci garab yi di ko séenu loolu daal laa ci am ma nga xam ni gone mag ñi sax daawuñ ko gis waxuma laa gone yi waaye seex mii nag da ko mayoon sansu moom mu taxoog moom ci biir ka gi ndax li ko gënoon may boobu sans waajuram soxna fa ko dafay nekkoon ak aku njabootam gépp soxna Faati sëñ bi defoon ko magum kër gi da koo defoon magum kër di ko lijjanti loolu bari ci kër gi di ko yónni ci njaboot gi di ko defar loolu yu bari yooyu nag bàyyi seex mii la daan yónni ci soxna Faati seex demal ni soxna Faati ne def nangam ak nangam demal ni soxna Faati ne dem ci diw ñoom ba joom waxal ma na waxal ma leen nangam sëñ seex bu demee wax loolu buy rendre compte ba soxna si bu lijjantee la mu lijjanti ba noppi buy rendre compte bàyyi seex lay woowaat wax ko ko mooy demaat ci sëñ bi wax nga xam ni léeg-léeg mu ne ko wool ma soxna Faati waaye li ci gën a bari da koy wax na demal wax ko mu dem wax ko sëñ soxna Faati wax ko diggee nga xam ne day mel ne loolu la ko sëñ bi bàyyee woon moom ci kër gi kon moom amoon na chance ci sëñ bi boo xam ni mag ñu bari amuñ ko te booba gone la ci ñi ci ñeneen ci kër gi ndax booba ñaar fukki atam matul ndax moom bi sëñ bii dem booba ñaar fukki at ñetteel ba ci la toll ñaar fukki at ak ñett wala wala ñaar ci la toll kon li ko jiitu lépp ñaar fukki at ak matul sëñ bi sëñ bi di taxoog moom kon loolu boobu sens moom moo ko amoon loolu moo ko yóbbee nag melokaan wu mu meloon sëñ Tuubaa da ko suuroon ba ba ba mu yor melokaanu sëñ bi ci waxiin ak ci jëfiin ak ci yar ak comportement ak lépp sëñ Tuubaa dong nga ko neexoon sëñ Tuubaa dong nga ko safoon moom dong ngit la daan roy su soo ko masaan di ñaan loo soo tàllalee ne barkeb sëñ Tuubaa mun la tuflil mënoo doo wax nag ba mu teg ca baat daan daan naa yow fi ma jëmoon njëkk nga ma fa fu ma jëmati tuflil fokk da ngay tufli rek yow kay yaay yor ñaan gi léegi waaye moom duuti ñaan kon kooku li sëñ Mbàkke doon wax sànq muy li nga xam ne moom lañ fi sëñ bi bàyyi loon muy ak mbaax akuk defaru akuk njub te mag ñëpp meloon noonu bàyyi seex mii royukaay la ci mag gone yu bari xam nañ ko sama classe gi ak ñi nga xam ne ñoo ma gën a doon gone ñu ci bari xam nañ ko waaye kenn ku ci nekk la nga xamoon ci moom mooy rek loo xam ne lii ku koro yi danga nga ndax ak njub ak yar ak ku ak mbaax ak kum gis nag laa biira la kum gis laa biira la saa ma masaan saa dawul jog ci kër sëriñ bi man dama ko miinoon bu baax ndax daanaa ñëw ci kër gi sax waaye bëriwut ndax man booba maa ngi ci daara yi waaye sëñ bi danaa ànd ak moom di ñëw ci daara ndax sëñ bi daa taamu woon melokaanam woowu donga yi di ko gis dadaan woo dadaan woo donga yi ñëw toog sa bu ànd ak sëriñ Seex mu toog mu woo donga yi ñu ñëw wër ko di ko xool melokaan li li sëñ Mbàkke mi wax sànq ñoom seenu melokaan rek mooy mooy moo moo moo ci la ci la nit ñi jànge léeg-léeg mu ni ko demal nga waxtaan ak ñoom bu ko bu dee bu demee da ciy topp toog ci biir jataay bi sëñ Cheikh di waxtaan wutaloon nañ ko daara joo dem néeg sëñ fa sëñ Cheikh Fatta ko amoon na bi defaraat yu bees yi xewee lañ leen dindi waaye njuru njurul boo fa demee ca ñu fa yàggoon boo nee ana néeg sëñ sëñ Cheikh Fatta boo ñëwee xabaan boo ñëwee got fenn fu ci nekk néeg sëñ Cheikh Fatta ko dafa amoon boo xamante ne moom lañ ko tuddoon moo fa daan dal kon moom sëriñ bi da ko fonkoon bëgg ko bëgg koo xam ni melokaan wa mu yoroon mu bëgg mu def ko ci dongo yi dongo yi nag it ñëpp a ko miin dongo yu mag yii ñëpp a ko miin ndax nekk nañ jàppandal sëriñ bi daal leen di yebal am net ñëwel ñu di ko bayal si bari na ci ñoo xam ne ñu ma koy nettali man ci woon booba waaye bari na ñoo xam ne koy nettali ne yebal na leen ba tay ñu ñëw am met ñëwel di ko bayal si tool yi ak tool ya ak di bay si pénc ma ak di leen won ni jëmma jëmmangoogu joo xam ni ku ko roy danga mel ni sëriñ bi bëgg kon kooku mooy ki ñu doon fàttali ko tey kon ku fi jóge te xamoo ko woon gëstul melokaanu kii te jéem naa mel soo nu melee rek da nga lii sëñ Abdou sëñ Mbàkke doon wax sànq eh, sunu borom dana la ci dimbale dañu gëstu aw melokaanam gëstu melokaanu mag ñi li may faral di wax gaa ñi ne leen kër goo dem bu fa soppi ko amee gannaaw mag maa waaye mag ma sëñ Tuubaa defaroon ñoom ñëpp ñoo bokk nañu mel am na kilifa gu baax danaan wax buñ la nee ñi sëñ tubaa jur ku ci gën wala ñi sëñ tubaa yar ku ci gën ku la ko wax nee ko koo ci miin waaw koo ci miin rek da ngay defee ni moo gën borom ñoom ñëpp ka njëkk ca mbàkki kajoor ga ba ci sëñ seex mii amu ci koo mën a waat ni moo gën morom ndax ñoo bokk nañu mel ñu sëñ bi dem mel rek la leen melal seen rawanteeg xam-xam mënoo koo xam ndax kenn du ci cuune kenn du ci def lu dul noona ku wax nga defe ni kii moo fi raw mu mu toogee foo ko fekk wala mu solo wala muy dox boo ko gisee bu buñ leen kii fóorale doo ko mën a waat ak même donte jàngut am na ci mag ñoo xam ne jànguñu woon waaye mënoo leen a xàmmee ak ña jàngoon ndax li jàng di jëriñ moom la sëñ bi defoon ci ñoom ndax jàng moom du raaya wasila rek la dafa am lu ñu lu ñuy wut loo xam ne ci jàng nga koy jaare sëñ bi nag sunu borom da ko mayoon muy dem ci xolu nit ki directement def ci li nga xam ne moom lañ soxla ci nit ki ak ci jëmm ji ba ku mu yar ku mu yar su waxtaanee nga defee ne kii fi raw su doxee wala mu wax nga defee ne kii fi raw ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp kon nag mbokk yi kii nga xam ne moom lañ doon fàttali ko tey li fàttali li muy jariñ mooy nañ jéem a xam na mu meloon jéem a xam jikkoom jéem a xam melokaanam jéem koo roy loolu rek la fàttali ko ki jëriñ jëriñul leneen ndax moom la sëñ Tuubaa di def defal na ko ko ba noppi léegi nag noonu rek noo des si si jëriñu si jëriñu si nag mooy na mu xam xam na mu meloon nu jéem naa mel na mu meloon nag dara jiituwu ci woyof woyof woyofaayam moom miinuma ko ci nit ginnaawam woyofaay bi ma xamoon ci moom miinuma ko ci nit wax dëgg yàlla ginnaaw ku defaru nag noonu lay mel day woyof day yaru bu waxee nga ni gonga bu jëfee nga ni gonga lii sëñ Mbàkke wax léegi sànq sëñ Tuubaa da daan wax ni képp koo xam ne bu nit jógoon ci man jógoon jëm ci man bu dajeeg yow wàññiku ngir sew melokaan bala ngaa jéggi siraat danañ ko layoo loolu waxi sëriñ bi mage mage ma ko nettali képp koo xam ne yor nga melokaan woo xam ni su nit jógoon jëm ci man bu dajoog yow wàññi ko ndax xeeb saw doxin bala ngaa jéggi siraat danañ ko layoo kon nag kuy tudd sëñ bi war ngaa seetaat sa bopp seetaat sa bopp jéegi jéem a teg ci yéen wi wër ba ku gis def la royukaay waaye ku la gis ne cim xoolal murit bii yabe ci murit yow day bis boo layoo ak sëñ Tuubaa da nga ñàkku lay kon nag yàlla nañu yàlla dimbale ba jëmmi jii nga xam ne moom lañ doon moom la ñuy fàttali ko tey yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla yokk ay leeram yokk ay ngërëmam yéegal ko ca daraja yu kawe ja teg ko ca loxoy sëriñam bu tedd ba mu yéegoo ko mu yéegoo ko ca màqama yu kawee nu nit yàlla tawféexal nu ba na ko sëriñ Tuubaa defoon mu rafaatale nu ko nu mel ni rafaatal ko njaboot gii nga xam ne ñoom la fi bàyyi muy sang su góor si ak su jigéen si ñëpp te wax dëgg yàlla man li ma gis ci ñoom xawma ci koo xam boo ko gisee danga nga ne accam déedéet xawma ko ci ñoom du góor du jigéen nit ñu yaru nit ñu yaru nit ñu nite rek laa xam ci ñoom loolu nag yàlla na jëm kanam yàlla na sëñ Tuubaa doole dimbale parce que sëñ Tuubaa ba melokaan wi nuy fàttaliku mu def ko ci noonu def nuy taalibe sëñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg yu mu gërëm yu mu nangul asalaamaaleykum wa rahmatullah